saytu wér-gi-yaramu yaay ak doom saa su ne rek muy soxal kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bu sell bi di Touba. loolu moo tax mairie bu Touba lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñoo di ay partenaire am di TCI ak Inspire waaye ci teewaayu ñu yore lépp lu jëm ci wér-gi-yaramu yaay ak doom ci màkkaaru jëriñ diñ dénk wàllu wér-gi-yaram mbooleem ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu wér-gi-yaram gi fii ci Touba waaye itam kuréel yi nga xam ne mbooloo moo nekk ci seen gannaaw te mbir mi soxal leen rawatina bàjjani gox yi ak ñëpp ñi nga xam ne rek mën nañu yaatal xibaar bi ci askan wi ñu amal fi nag ñaari fan lu tàggat fi ci hôpital bu jéemul moorloo mi bokk ci tofa maire bu Touba moom ak yeneen nattangoo adjoint au maire yi nga xamante ne bi teewoon nañ fa di ci indi ay leeral euh, ñun ñoo ñëpp ñu toog tey ak waa TCI mi ma la waxal xam ne mooy suñu partenaire programme bi nekk un programme intégré boo xam ne inspiré Eh, ñoom itam di jàppale district bi ci wàllu eh, wér yaramu yaay ak doom ñun ñoo ñëpp ñoo toogoon fii ñaari fan ci ab lël pour waxtaanee eh, li nga xam ne moom la ñu war a def ci programme bi te nag maire bi jiitu ci ndax maire bi moo TCI te loolu weer yële wala weer yële ci ginnaaw la maire bi ci boppam demoon ci ab ndaje boo xam ne Dakar la amoon waa TCI woo ko foofu euh, pour lu jëm ci programme yu mel nii xam ne day yokk indicateurs yi ci mbilu santé maire def ko itteem joxe ci ndigal jox ñu ndigal ñu topp ko euh, kon moom li waroon def def na ko ndax gis lu ci dëkk bi mu fexe ba na muy doxe ca Mbour doxe ko ca Géejawaay joxe ko ca dakaar ak Saint-Louis ak yeneen dëkk Nioro dañ ko tàmbale woon ak Kolda ñu indi ko fii waaye lu ñuy def nag dañ koy dëppale ak dëkk bi ñu jàpp ne nag wér yaram bokk na ci li nga xamante ne bii état bu Sénégal daf ko denk gox yeeg goxaan yi waaye terewul itam saa su ne maire bu Touba di Serigne Abdou Lahad mi ngi dox ay jéego ngir jëmale ci dëkk bi kanam Euh, euh, fekk si li nga xam ne moom lañuy def ci ci wàllu santé mooy tabax ay poste de santé jàppale leen ci ci seen liggéey ba wax dëgg yàlla dëkk bi nekk euh, district bi nekk royukaay loolu nag ñu ko ci sant di ko gërëm bu baax ñun itam ñu nekk suñ ginnaawam ñu nekk di weer liggéey boobu saytu bi loolu moo taxoon ñoom ñu ñëw tey jii ñu xoolaat yëf yi ba ñetti weer yi lan lañ ciy jukki pour def ko loolu def nañ ko tey euh, ak démb donc bi ñu njëkkee xayma ndaje mu njëkk mi mën ñu def ci réunion bu mel nii bi ñu xayma district bi ak tolluwaay yi indicateurs yi mu ñu jox ay 62 pour cent lañ amoon waaye tey ñu ko defaatee ñetti weer avant xam ne ñetti weer yu ne dañ koy def tey ñu ngi ci 76 euh, ñu ngi ci 76 pour cent donc loolu kon yokkute la boo xam ne gis nañ ko ci. ndaje mi nag bàjjenu gox yi nga xamante ne bii teewe woon nañu ko rafetlu lool xam-xam bi nga xam ne dolliku nañ ko fi lépp rek jëm ci moytu ay jàngoro yu bari yoo xamante ne bii nef daf koy indi waaye fexe itam yan xal lañu mën a jaar ba fexe ba wàññi xiibonu xale yi ak itam gàllankoor yi nga xam ne. soxna yi ñoo ngi ko dee am rawatina bu ñu wanee lor wala ñuy mucc. man ndongo Ndoumbé Ndiaye soppeeku Serigne Fallou Mbacke di bàjjenu gox dindi sëñ Fallou maay président ba. dalee amaan mbégte bu baax a baax ak kontante suñu formation bi ndaxte lu am solo la diggante yaay ak doom buñ ciy dox mbaa ñu di ciy wax ñun bàjjenu gox yi dañ ciy sawar te ñun lañ ko defal ndaxte ñun. donte ñu ngi ciy yëngu waaye bu ñu woowaatee formation di def nii dañ ci amaat mbégte bu baax a baax te gën cee sawar te gën a xamaat fi ñu teg suñu tànk bu baax a baax ndaxte donte ñu ngi ciy liggéey di ci dox bis bu set waaye dañuy takkaat suñu laxasaay gën cee gën a góorgóorluwaat ndaxte ñu ngi ci mbalay alxames yi ñu ngi ci daayira talaata yi ñu ngi ci daayira ajjuma yi ñu ngi ci réunion le 5 bu nekk ñu am réunion suñu poste de santé di saytuwaat suñu liggéey ba xam ne mu doxee kon bu ñu woowaatee ci yaay ak doom dañuy gën a yaatalaat liggéey bi kon mun naa ko cee ñun fas nañ yéene doxal avant première yi si ni ñu ko bëggee ak ñu leen soobee soobee Serigne Touba ba lépp gën a yaatu. ñu jàpp ne nag ndaje mi ñetti weer wi ne ñu ko fi amal ngir natt liggéey bi nga xamante ne bii sumb nañ ko ci biir dëkk bu sell bi di Touba jëm na kanam wala déet wala luñ ci war a yokkaat ngir mu gën a mucc ayib.